daa bu bokk Pastef génn na euh, Sénégalais yaakaar nañ ne mooy ki nga xamante ne nii maanaam moom la nit ñi ëpp ci moom yaakaar ne insha allahu rabbi maanaam élection yi moom lañ ci gën a yaakaar mu mu mu mu mu gañe ko léegi nag moom mu bokk ci ña nga xamante ne nii moom yirim amut métier yirim amutum xëy yow wax ma ban entreprise la yirim di xëy yirim poste moom déggatoo ko fenn na ma wax ban entreprise la sax yirim di xëy wala nga jënd na ñaari senegal yoo xam ne nee nañ yëri ma leen di fayum xëy amul gisuma ko ba ca des mooy moom bu ñëwoon day noppi ndax Sonko bi muy wax vidéo yi audio koy wax même pas six mois ci ginnaaw la ko wax waaye ci biir wax jooju noonu yéen jëm na dëggal waxi Sonko ji ndax noonu na bu ñu tabbee joomaay di nga dégg wax ju ñaaw ju nekk ñu di ko wax. Mm-hmm. mooy li yëriñ di def nii wax ju ñaaw jooju noonu. ba ko ba ko Sonko di wax booba lu gàtt la taxaw assemblée nationale di di di ŋaayee gu ngande googu ba muy taxaw assemblée nationale di wax booba Sonko fekk na Sonko waxoon na loolu ba pare kon Sonko xamoon na ne danañ yi seen naafiq ñu envoyé tere yi di fen di dajale moom Sonko xamoon na loolu moom ndax dafa xam seen jikko ñooñu nag buñ ci àggee mënuñoo ñàkk crise yërim moom bu fekkee loolu la tuddee crise moom insha allahu rabbi crise bi bëgg muy dox bu fekkee da ngaa am xam-xam jàng ba am xam-xam xoolal ci Ousmane Sonko liñ ko teg jaaru na wala jaaru boobu point la Cheikh Yérim moo taxawoon daal ne man ab gentleman laa gentleman du du bàyyi koo xam ne dañ ko tëj kaso ngay wax ci ginnaawam kon li muy wax ni tey Sonko daa génn ba nekk si te kër góor gi wala moom moo nekk si gentleman jëm doon wax dégg nga ba des mooy Bassirou Diomaye Faye Euh, candidat bu bokk ci boo xam ne Ousmane Sonko ko tudd ñoom seeni pexe bu sotti woon mboolem ku laale Pastef doo bokk ndax ñoom bi ñu envoyé télé yi loolu lañ wax waaye moom boo arrière ay weer ci ginnaaw bokk wala lu mat at wala ay weer ci ginnaaw moom taxawoon na daal ne maanaam réaction bi mu joxe woon mooy Pastef candidat bu ñu am mooy jël élection yi yërim nag maam waxi démbam bu waxi démbam boo na teg waxi tayam day daal di waroo te mu baax ma waxoon na ne as gor waxi daawam na nga koy méngóoleeg waxi renam waaye yërim ay waxam àggut Yérim la mu waxoon ci weer wee ak li mu waxaat ci weer wii du dul bokk wala boog Yérim li wax ci bu bu duggoon ci télé bi tey boo ko invité woon DSA TV mu toog fi wax ay waxi dëggam ba ne lii mooy maanaam day jël waxam jaay waroo ne ko wax jëlee kooku moom kilifa mënta ñàkk Sénégal moom ku bëgg a dégg dëgg mooy ku fi wërtuñ xëy toogoo muy maanaam bëgg a toog muy dox li ma li ma tuddee ku fi wërtuñ xëy mooy képp koo xam ni maanaam jàpp nga ne ab derob jaabur si nga fas yéene yor sa kër mooy wax ñu lay fay ngay wax wala ñu lay envoyé télé ngay wax bu fekkee loolu am xëy na loolu lijjanti laa ko tudde lijjanti lijjanti nag da nga tool foo xam ne da nga mbir mu të dégg nga li ma la wax lijjanti mooy ay pexe la seetlaat waxoon seetlaat nee na ay pexe kenn du ko yoree kër ndax nee na loo xëy laal di nga ko gontu lalli fexe ba am dépasse tey dem ci maam jaar leb ko ñaari junni bu ëllëgee ma dem ci ma dem ci keneen leb ko ñaar sëñ Mansour ma dem ci leb ci ñaar wala Seydou ma leb Seydou ñaar bu ëllëgee ma demaat di ko lebaat danaan bor du am rab léegi yéen li muy def mooy télé bu nekk seetlu ko xoolal fo xam naa ne foofu laa jeexal ci yéen yërim sappel nga xool télé bu nekk lam fa wax ak lam wax ci beneen télé ba bokkul mooy la ko Baara Njaay bu mu bees fen fen la a mu war a fenati ko am xam-xam ba pare doo wax dëgg da koy boole ci munaafi xoore isa jaa akal munaafiquuna saar woowu nga xam ne yàlla wàcce na ko naafiq yi da nga koy boole foofu waaye am xam-xam tamit toog ci moog ñàkk a jàngee yem ñaar yu bokkul laa la waxal am xam-xam ba pare naafiq kooku ab naafiq nga dañ lay boole mooy doo wax dëgg dañ lay boole ca munaafiquuna ya wa ilaa nga am xam-xam ba pare daal di seetaan mooy benn waay boo xam ne ñëw nga jàngee ci université yu magee waaye li la yàlla wàcce Sénégal mooy seetaan mooy seetaan naa ñuy salfaañe ak ak yële fi ay doomi aadama yoo xam ne jàngee woon naa ko xam naa droit xam naa loi waaye lii tere nañ ko waaye ñii maa toog ko ko yàlla na too nga fas yéene nekkee noonu yow Sénégal dangaa seetaan si ndax am réew loo yambare yambare war a mën a réew mi dara bu dee dangaa jàng woon am nga li nga jàng nga rëccee dimbali réew mi bu fekkee dangaa ci loolu yërim moom bu may wax ci moom du ma fi jóg ndax yërim li muy wax daa bëri te yërim du wax ñun équipe nationale fenkat yi bu ñu leen boole woon yërëmee capitaine bi moom jàll. wax si euh, li nga xamante ni rek euh, moo ñeel euh, ci ponk yi tey ñeel kenn ci juge conseil constitutionnel jamono ji dafa daal di porter plainte contre X ngir kaddu yi wala tuuma yi nga xamante ni boobaak léegi ñu ngi koy dégg ci ñoom. te euh, mu jóge ci waa PDS jamono ji ñu toll nag porté nañu plainte Cheikh Tidiane Dieye jamono ji ñu ne dafa daal di renoncé wu euh, sa candidature ngir daal di mën a jàppale rojo may Faye moom nag nee na euh, dafay di rangé wu ci ginnaaw Bassirou jàppale ko ndax jàpp na ni daal loolee bu amee dinañ am Sénégal bu meilleur ngir ñu daal di mën a dindi système bi nga xamante ni moom fii nekk depuis 1960 beneen ponk bi bokk na ci ba tey ba Bassirou Diomaye Faye dañuy desani ci moom. ndax jamono ñu toll nii candidat la tey te dafa war a am temps d'antenne foofulee ci doyen RTS 1 mu nekk suñu télévision nationale ngir mën na fa daal di euh, euh, wax ak askan wi tëral fa ay programme am loolee nag jamono ji ndax dina mën a nekk ndax dañu koy bàyyi moom mën a wéyali campagne am bu ko defee mu mën a amal euh, temps foofu foofulee ci RTS 1 am dañu naka la ñuy def daal ba mu mën a matale li nga xamante ni sañ-sañ la ci bépp candidat Satou Ba li la ñuy waxtaanee ban jàngat nga ci am. maanaam dafa am juge bu pelante waa PDS mhm. ci ne dañ leen a wax wax ju ñaaw àdduna mhm. de ñaari fam def dara di ko nëbb yàlla def dara di ko nëbb nit ñi li ngay nëbb yàlla nag yàllaa ngi ci ne fàng di ko xool li ngay nëbb nit ki tamit yàllaa ngi koy gis moo jàppoon nga ne nit ki ngay nëbb ba ci des jàpp nga ne yàlla ngay nëbb mooy li nga dugg ci dugg sa bureau nit di la neexal xaalis ngir nga defal ko li mu bëgg wa ilaa nit bëgg lu neex nit nga di nga di ko defal moom li mu bëgg yaar yooyu bu ci mënta doon yàllaa ngi naan yàllaa ngi teg sa bëtam di la xool yàlla mooy borom bët bu rëy bi ci wa ci lu waay na xam na ko kooku kenn mënu koo nëbb ba des mooy juge bi bu fekkee ne yàlla daa dogal mu mu sëgg ci mbiru moo xam ne daf cee salfaañ ak ak yelleef doomu aadama bu ko defee ba noppi nag te teg ko ci teeyu bakkanam amut ci dara lu dul lu neex benn waay loola moom insha allahu rabbi kàddu ga sëñ Baye Jaxate waxoon xaw ma sëñ Moussa Ka dana ko dal mooy ku nekk kem la nga daa jëf boo jógee ba taxaw moo jiitu for di la wa mat ba dem di naan la siis defoon naa nga wala ñu boole ak enquêteurs yi ñu naan la saa Tuubaa dégg naa xaram bàyyi diw ma yaa ko sax nga naan du man man man loolu man may gor ñaari gor ma sukk jiir man dama sàcc te bu dee ay gor dong ay kaña ay kaña jurante gisuguma kaña giréen bu jurante di wax wax de waaye bu ñu ma booleeg ay ponkal bu ñu ko way ne ku nekk kenn la nga daa def boo jógee ba taxaw moo ji defar bu la mat lay mooy boo jógee taxaw sa jëf moo naan laa jiitul wala nga jiitul ma topp sa ginnaaw wala ma jiitul nga topp sama ginnaaw mm-hmm. nga xam ne yow sa jëm bopp fii ci àddu yaa doon atte waate waaye bu la yaa say cëre lay atte loolu moom juge bu nekk na nga ko bàyyi xel waaye toog ci bureau di def lu la neex jàpp ne def lu la neex am lu la neex yàlla mooy ko kenn yàlla sëñ sëñ Tuubaa ne ko maanaam sëy lu la neex jur doom ju la neex yàlla mayu ko kenn waaye àtte lu la neex am lu la neex suma ko ko yàlla may mm-hmm. bu fekkee ne moom dafa jubloo salfaañi ak ak yëleef si waa waa waa waa PDS teg ko ci lan mooy loo xam ne ba bakkanam dong la moom da jàngi woon na te lam jàngi woon dañ ko doon bindal doon bindal ci lu mel ni luñ peinture peinture bu ñuul woon ñëw war a service waa réew waat sa digganteeg yàlla ak sa aqulaay taala yoon nga tiim dara ki nit ki àqte waa PDS bu fekkee ne yéen tamit maanaam da ngeen a yéen neexu leen a faral ndax PDS PDS daa neexut a faral. Hmm. mbër muy entraîné mbër muy entraîné uti galaaj a neex a faral waaye entraîné uti way galaaj bëgguñu faral la loolu ndam du yomb ci yow. Hmm. PDS daay jéemu dara PDS comme jeeg bu ne ci kër lu muy def lem laaj ko jëkkër ji bu yàggee jëkkër ji daan laa xanaa sa baay waajulu la woon kon PDS daa mel ni dañ leen a waajalu ndax bu fekkoon dañ leen a waajal duñ ñëw ba fii ñu am benn candidat groupe yow ñu ñàkk lépp kenn du ko def boo dajee gouvernement bi wala nguur goo xam ne jaay doo ak ak yelef lañ nekk da ngay programme sa bopp ne ko mhm. ba def ay épisode ñaar génn gun na PDS yi nekk ci parti bi bëgg liggéey réew mi ñor leen kon dinañ ne comme réew mi ñu ñor buñ jël suñ lépp teg ko ci Karim ndax Karim ak Qatar ñëwut te photo yu envoyé bu dee loolu dong la suñu gone yi mën nañu ko kon nañ ut keneen kon programme buñ éliminé maanaam Karim ñu jàll ci leneen kon PDS dañoo juum juge bi tamit bu fekkee dañ koo tooñ ngir lan mooy àtte na dëgg waaye PDS ñoo jóg bëgg attaqué juge bi ab juge daa waat war a liggéeyam réew kenn waru ko yëpp ab juge daa waat war a liggéeyal am réew kenn waru ko yëpp ñaar yooyu moom ñoom ñaar ñoo ko seddoo àtte ci la neex am la neex yàlla du la ko may waaye nit ki àtt dëgg teg ko ci àqulaay am ak taalaam nga jóg di ko ko ci yoon lu def na yoon mm. ndax ñun suñu réew mi kat dañ fi am ay loi loi yi nee nañ am na article buy baare mooy baare Macky Sall fi mm. boobu mooy protéger Macky Sall ban article la xam nga après na ma ko gars yi man xaw ma ko article boobu noonu xaw ma ko mm-hmm.

loolu fii la yem àdduna la yem waaye yow man xel amul loolu de bàmmeel danaa la loo andaale loo andaale la yow waxut dafa am article bu doon mën nangam article fii la yem Sénégal bala ba war a xam nga bu ñëwee lu ñuy wax lu mu bàyyi lu mu fi bàyyi nit du dara nit xool nit du dara ñi la gën a bëgg say jeeg yi nga xamante ay dirànke la yaa takk say jeeg tabax sa kër boo demee mu du dara de article du dara article du dara Macky Sall ci yow insha allahu rabbi 27 jours 27 jours ah mhm. man saa tubaab am na foo xam ne doo fa àgg Macky Sall mhm. waaye léegi boobu article boobu àdduna bi moom mën na ma fi lijjanti waaye article boobu lu daal Macky Sall yomal kaam article am na ci lu mooy ku ne la kaayama làqa la ku la dóor ma dóor ko téew mu dóor ma dóor ko sëñ Tuubaa na làqu na ci man li nga xam ne diis ma dóor te doo gis ñu dóoraate waaye léegi làqu ci ab article boo xam ne quatre-vingt mooy nga bind ab huit def ab sore ci ginnaaw ah wuti kub saraf nga def loola neex ne ah wuti kub saraf bi moo aar ba kenn ak sama àgg sama kaw loolu laa ko waxee de amul ay kub saraf mooy quatre-vingts waaye nee na article quatre moo baare saa tuba ba lim dénk Macky am na foo xam ne ko wax wala bu koy wax sax na ko raay wodd ko ba mu wax dëgg ñëwut boo gisee dëgg boo ko wax neel dañ doon jéem a nangam day wax dëgg directement waaye article boobu nag d'accord naa ko ndax mu mënut article boobu dootu ko mën ci Macky Sall féet wen sept jours xam nga fas moom boo ko joxee dafa taa dafa taa tontu ne lekkal dégg nga li ma la wax moo maanaam saatu baa moo jël maanaam teg ko ci télé bi ne ko baxañal télé bi kon article boobu baare na Macky Sall waaye léegi mu ñu tegee ba ca des mooy Bassirou Diomaye Faye Bassirou Diomaye génn campagne yéen Sonko Sonko six mois ci gannaaw mi ngi campagne bi xamoo nga ne woon lool lool. ñoom mm-hmm. Seydou Ly ñi kañ la tàmbalee bokk yi nga dégg ñu woote ci de maanaam 2A TV gii ba léegi ñu ngi campagne ndax lan mooy ñun danoo yor lu ñëpp gis ñun ñu ñu njaay mu lamb de ñun xoolal dañoo dañoo yor loo xam ne Sénégalais yi ñooy daw de ko rang. bokku ñoo benn waay boo xam ne daa ànd ak ki mu war a àndal wër dëkk yi région yi di dem di diggaate Macky bi muy bi mu déclaré Amadou ànd ak Amadou jàpp ci loxoom ñuy dem ay dëkk fii di fa diggal ay milliards ba mu diggee milliards yooyu ba pare ba dem Macky ko war a jox nee naa leen milliards yi dañ ko digg waaye duñ ñuy dañoo yor ne ñun ko jëndi for force marchandise dem fi gaay yi jaayee gis ku ñuy rang lu tax ñu di ko rang la muy jaay moo baax ñëwal fii di jaay fonde li ne waa waa Dakar genn wàll gi cere la ñu ci bëri cere la ñuy cere tiitar bee fi nag asan bi rek waaye fi ne nii boo leen romban tey mel yi jaay cere dañ leen di rang la ñuy jaay mooy la jaay na Amadou ba fi mu ne nii Amadou jarul jaral na koo toog de mer jaral na ko lu ne léegi joomaay min am mu ngi ci mu ngi ci yàlla dogal na mu ngi prison man li ma gënal sax mooy joomaay bu génnoon na dem këram dallu ji mm-hmm. li ma ta am ak li ma ta xam nit ñi xam nañ ko ba noppi Sénégal nag tollatuñ foo xam ne sénégalais yi dañoo xamul li leen war sénégalais li leen war mooy li Sa Touba xam ba jël ay responsabilités boppam xamal boppam ne sama ëllëg bu jagee nañ am njiitu réew mu baax mooy tax sama ëllëg jag ginnaaw yàlla insha allahu rabbi bu ma amul njiit lu baax même bu ñu amoon ay teere or ak teene jamaa duñ ci jëriñ mm-hmm. bi ci des ndax lan dégg nga fi pétrole dégg nga fi gaz circon dégg nga fi boo demee Fukushima googu kër yi wër Fukushima fa ñuy defar ciment ba gisoo fa bâtiment bu baax te ñoom nee na ñu ngi ci taatu ñu ngi ci taatu fi ñuy defaree ciment bi boo demee fee ne dëkk bee ñuy defaree euh, euh, maanaam xeer bu ñuul bii béton bu ñuul bi gis nga leen ña fa dëkk ay